Buldozer liggéey na li mu war a liggéey Caatu Yoof liggéey na li mu war a liggéey mais buñ xoolee ci côté miskil da ngay gis ni Caatu Yoof moo gën a daggale ay miskil Buldozer xaw na devanture bi mu xaw na gën a volumer Buldozer moo ëpp biir mais en tout cas Buldozer liggéey na parce que en général moom min nañ état de forme bii ci moom Caatu Yoof min nañ état de forme bii ci moom mais en tout cas Buldozer taxaw na Caatu Yoof taxaw na mbokk yi dimanche la le janvier 2023 fii ci arène nationale 20 jot na ba teg 15 minutes ci wàllu waxtu combat bi ñu doon waaj ay weer arbitre sifflé na ko tey fii ci arène nationale Fallou Ndiaye Ndiaye production moom moo ñu fi woo ndeysaan mbokk yi bàyyi xel Guédiawaye foo mbokk yi bàyyi xel lamb diaspora ñi nga am mbégte kontaan ci jàkkaarloo ak yéen en tout cas Thiatou Yoff mi ngi teg euh, pied droite Bulldozer pied droite ñoom ñaar ba tax na ku ci ñoom ñaar ñoo bokk pied buñ teg waaw ñoom ñaar ñoo bokk pied buñ teg mais boo gisee caatu yof daf daf ko sëqatal mais damay ragal coppe tànk coppe tànk man da sama njaga mu ngi ko topp rek mais Buldozer daf ko mel ni ku ko ragal ta ragalu ko ñuy too benn benn kenn cokkaasagul kenn deful dara arbitre mun naa leen bëri leen laaj njaga cokkaas na ko mu daw mu daw réglé tuuti boo boo xoolee caat dafa xaw a wàcc tuut pour mën a tolloo ak moom waaye il faut mu def demi flexion gis nga loxo gos caat yof bi muy sama nday xeex ba na ko door na ko na ko daanoo gul de caatu yof bil de seer caatu yof dóor ko mu daanu. la ilaha illallah nee naa lamb ji mu daanu mën na soo. dóor mu xeex bi yëpp ñëpp dañoo joxoon favori bi caatu yof si wàllu xeex. daa mën xeex. caatu yof dafa mën a xeex. am doole la yàgg naa wax ni. laa ilaha illallah bil de seer. dóor na bu rafet. yow man dama entraînement ànd ak su ma suñu suñu tête de file muy Modja Modja moo ñu teg lu métti ay kii Yoff ak côté côté Père Baye Ngagne Abibou Ismaïla ñu ngi leen ñaanal jàmm yal na yàlla defal jàmm sama staff ñi sama commune de Xoo yëpp yal na yàlla defal jàmm kontaan naa si ñoom trop trop trop booy maan man billaay sama gos danga bu kii on ni ko yaaka man doo moromam yàlla xam na loolu maamul combat bu baax maamul combat bu mag du combat yi mag yi ma amul du ma bëre Diène Kairé amagul combat Diène Kairé amagul combat ah moo jaax gin yàlla may dem ah onge xam nga ñaanal sama sama gars yi ñaamul combat yàlla may leen combat